ñetteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi te saa yooyu xarekat ya doon wattu bàmmeel ba dem ci sëriñ yu mag ya nettali leen li xew njiiti yawut ya daldi daje ñu fay xarekat ya xaalis bu bare ngir ñu wax ne taalibe yeesu ya ñoo sàcc néew ba noonu xarekat ya jël xaalis ba def li ñu leen sant wax jooju la yawut yi gëm ba tey jii deewu yéesu ak ndekkiteem am na ni ko yéesu waxe woon fàttaliku leen ne yéesu waxoon na ay taalibeem doomu nit ki war na sonn lu bare njiit ya saralekat yu mag ak xutbakat ya dëddu ko ñu rey ko mu dekk ci ñetti fan beneen yoon itam yeesu waxoon na daane leen kër yàlla gi ma daldi koy yëkkati ci ñetti fan yawut yi dañu defe woon ne kër yàlla gi ci yerusalem la yéesu doon wax xamuñu woon ne yeesu boppam la doon wax bi loolu weesoo ca bés ba yeesu feeñu na ñaari taalibeem ci yoonu emmaus yeesu feeñu na itam taalibe yi bi ñu dajaloo tëju ci ab néeg mu won fi ñu ko daajoon ay pont ci ay loxo ak ci ay tànkam gannaaw loolu mu wax leen lépp lu yonent yàlla musa ak yonent yàlla daawuda ak yeneen yonent yàlla bind ci moom yéesu loolu lépp doon na dëgg mu ne leen faw almasi bi sonn mu dee te dekki te ñetteelu fan ba ni ñu ko binde te it ñuy yëgle xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yéenay samay seede te man dinaa leen yónnee li sama baay dige yéen nag toog leen ci dëkk bi ba ñu sol leen doole ji jóge ci kaw noonu yeesu ne mes ci seeni bët léegi ma laaj leen ñeent lan lanu ndekkiteel yeesu di wane na ne yéesu mooy doomu yàlla ji te mooy musalkat bi ni mu ko waxe woon bu nekkul woon doomu yàlla ji ak musalkat bi kon yàlla doonu ko dekkil wane na ne yàlla nangu na peyu sunu bàkkaar gi yeesu fey bu yàlla nangul woon pay gi yeesu fay kon yàlla doon ko dekkil